مدالي الحق المبين ما للبرية يبين وما لخير لا يبين من بشر ونعم ما سين با جونا سوبلن دم غاربا جوغلن تاخاو jër leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu mbokki Sénégal njàqare jeex na bis ni ki tey ndaxte lu ngeen doon jéggaani faneen ñëw fekk si leen fii ah dama ni mbokk yi su ngeen bëgg a tee lu sell lu neex baax seen wér-gu-yaram bu ngeen doon wër kafe bis ni tey mbokk yi gis ngeen ndax nag kafe café Serigne Fallou Mbacké di produit bu bees tàq ñëw si marché bi waaye nag wuyu boromam café Serigne Fallou Mbacké 100 pour cent hygiène 100 pour cent pour cent naturel bii nag ma ah, mbokk yi ku yéex de ñàkk ndax nag moo mujj génn de waaye moom dong la ñëpp di jàmbat café Serigne Fallou ba moo waral bu ngeen bëggee am si ay stock def seen réservation mën ngeen woote bu dee Touba si bu dee Dakar Ouest Foire lay doon wala Rufisque ngeen woote si wala sax ngeen woote si 77 521 39 14 produit bu mucc ayib moo leen di gunge saa su nekk. rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala xayri xadimihi wa wala kaanu isa laylu arxa sitra saa alakin xaamu siraaha li ixyaa il jinnaati asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di jiital ci nuyoo boobu ak siyaara bi saahibul fadila al cheikh Mouhamadunil Muntaqa di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool samay ko ak wér te mottali ay yéeneem ci sëriñ bi te ñaan ko moom di siyaar ak a ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Cheikh Abou Madiana Souhaïbou di ko yàlla yàggal ko fi lool tamay ko ak wér ak mboolem njabootu Cheikh Souhaïbou gépp góor ko ci Cheikh sëriñ Cheikh Ahmadou ba ci Cheikh Abdoul Khadir di beral am nuyu ak siyaara Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Souhaïbou mi nga xam ne mooy porte-parole njabootu Cheikh Abou xam ne jàmbaar la lool ci léegi sëriñ Tuubaa ku liggéey sëriñ Tuubaa ñor lool mu bëgg lu baax ràññu ko si lool na nga koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiix ak mbooleem njabootu Cheikh Souhaïbou gépp ñu ñëw yéen tey di fàttaliku Cheikh Abou Madiane Souhaïbou jàmbaari lislaam ju mag joojee taalib sëriñ Tuubaa bu mag boobee sëriñ daara bu mag ba ka eh, sëriñ Abou Gueye waxoon ne naaj ak taw ak sedd du soppi mbaaxam te ay bagaasam loo ca lal xam mbóotam këram ga moo doon daara daaratu rahmaani xalwatin bambaa ko wax bii daani dëkke woon ca bam daa kër googa ak daaru xudus fil ali bambaa ko dëkke dëkke woon ca bam daa kër googa ak daarul xudus fil ali saa bu dikkee foofa ñu may ko boppam lii tax ba weetu saison yi bu dam doy na mu teg ca ne ku mas ni jàkk leer ga dal lay màndal ku weddi lii xolam ba sellu laabul kooku mooy Cheikh Souhaïbou Mbacké mi ngi génne àdduna ci atum 1916 27 juin 1916 ci bisub ajjuma ca albuqaatul mubaarak waajuram bu góor mooy Cheikhul Khadim waajuram bu jigéen mooy Sayyidatuna Mariama Jaxate soxna Mariama Jaxate waajuram bu jigéen mooy soxna Jang Silla di doomi Libaas euh, waajur euh, soxna Mariama Jaxate moomee ak soxna Fat Jaxate mii waajur Cheikh Salih Mbacke ñoo bokk ndey baay soxna Jang Silla mi leen jur ak soxna Joor Silla ak soxna Euh, Fat Silla mi wajuru soxna Momy Xaadim ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñett soxna Joor mooy wajuru ñaari soxna xari yooyee soxna xari daaru ak soxna xari mbar wajuru soxna may mun soxra ak wajuru euh, Cheikh Abdou kon lu faw ñoo ñooy ay bokkam wajur bu jigéen woowee nag nekkoon kenn koo xam ne jàmbaari lislaam joo xam ne moom soxna Mariama Jaxate nekkoon ku yéeme ku teel a yéeme ci farlu ak bëgg lu baax ñi ñi ko xamoon ñépp wax nañ ne ndaka jekk ñu xam ne kii moom mënta ñàkk am lu baax ndax dafa jóg rek teg tànkam ci siraatal mustaqim eh, di liggéeyal yàlla di liggéeyal Sëriñ Tuubaa doonoon ku daa jàngale alxuraan doo daan doonoon ku mokkaloon lu baree bari ci xasida yi ci xasida Sëriñ Tuubaa yi mooy wajur Cheikh Abou Madiana Souhaïbou yàlla dogal am at ak tuuti la def ak sëñ son bi daal di wàcc liggéey bi mu wàccee liggéey sëriñ bi joxe ndigal ne nañ ko yët Cheikh Moustapha ca Touba mu taxawu ko te defal ko ko ca tànki te ko ko ca tànki soxna mi te ndax wax nañu ne sëñ bi nee na ñoom ñaar dañoo nuru ay mbir nuru ay mbir gi nag mënees na ko jàngate neen rek ci sayit si mooy ñoom ñaar ñépp ku ci ne ñaar nga am ak sëriñ bi te ñaar yi nga am sëriñ bi tam ñoom ñaar ñëpp ku ci ne ñaari góor nga am ku ci ne it góor ga ca mag mooy nekk xalifa ki ci topp nekkul xalifa Cheikh Moustapha nekk na xalifa Cheikh Abdou Ahad nekk na xalifa sëñ Baara nekkul xalifa sëñ Soxna bi nekkul xalifa ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk euh, ah, lu néew nga am ak sa wajur mu mu génn àdduna kon say si rek mayees na ci jàngate lool sëñ Soxna bi bi nga xamee ne yàlla dogal na mu gane àdduna wax nañ ne euh, bi mu demee ba mat dal jàng sëriñ bi moo ko dalalal boppam jox ko sëriñ Xamsatu Jaxate woo sëriñ Xamsatu Jaxate jox ko ko wax nañ ne bi mu koy jox moom la la boole ak Cheikh Saalix Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh ak Samad wax ne wax ne ko ne ko ni wa ni ñenn ñi ni ñenn ñi baaxoo taxul ma jox la ko mooy jox nit nijaayam li tax ma jox la ko mooy dafa am lu ma def ci yow bëgg nga def ko ci ñoom sëñ bi bi mu leen jëlee jox leen sëñ Alsaan Jaxate moo leen jàngal alxuraan bañ mokkal wax nañ ne Cheikh Souhaïbou bu ko teel a mokkal la ñetti at ak tuuti rek la waxtu laa di mokkal wax nañ ne mokkale na ci kanamu sëriñ bi waaye fekk na boobu daa bindagul kaamil wax nañ ne euh, bi sëñ bi euh, di ñibbi si Tuuba fekk na walla wala sëñ bi woor woo mu leen woowoon fekk na euh, mu muy muy mu mokkal bay beq ba toll sootu la laxqaaf su ma juumut loolu lañ foofu la ñu wax ne fa la toll amaa daal bisiñ bi ñuy bisi Tuubaa moom fekk na mu mokkal waaye bindagu kaamil moom wax nañ ne bind na kaamil ba yeggal waaye dañ dañ doon nigga ne bi laat ak kaamil sëñ Suhaybu te kaamilu sëñ ñu boole ko fa yàlla dogal sëñ bi ñibbi si Tuubaa waaye lu jiitu loolu sëñ bi mas na ko woolu bis boo xam ne comme nim comme nim ni sëñ sut daa fa demee daa leen yóbbaale léeg ndax wax nañ ne sëñ Chouaib bu daana wax ne ba mu nekk ak sëñ sut jàppoon ne sëñ sut rek mooy mooy ab sëriñ ndax ndax colin geeg ak yu ni mel waaye nee na bis bi mu njëkk ànd ak moom mu ñëw ci sëñ bi ci kes gu njëkk gi ci la sëñ am sut tàmbalee wàññi yére yi ñu mu soloon bi mu jiwee sëñ bi rek tàmbalee raam booba ca la xam ne nag kon nag benn sëñ am na <laughs> wax nañ ne bis boobu euh, am na ak sëñ bi euh, ay wax ndax sëñ bi bis boobu yónni yónni na ko fa ay diggante yoo xam ne daf ko doon yanaloo ay euh, yóbbuloo ay gaal waaye bu yëkkati sëñ bi da da da koy wax ne ko waxal bisimilah wax bisimilah mu ne ko tegal diggante bi nag sëñ son bi am na ci diggante yoo xam ne da koy fàtte bu ko defee sëñ bi ne ko wax naa waxuma la woon waxal bisimilah. yëkkatil mu yëkkati mu dana mu ne ko fobal mu fob mu ne ko waxal bisimilah mu wax bisimilah mu tagat wax nañu ne bis boobu sëñ ba sëñ bi wax na ko fa dénk na ko fa ne boo toogatee del jullu xibla wax na ko fa it ne bul sëqat it maanaam mu bañ a am ay ñañ wax na ko fa it tàngalal na ko it ah, warga wax ko ne ko ndax xam nga li tax ma defal la ko ba mu demee bay bëgg tontu. sëñ bi sa tontu la ko ne ko moom de seet na seet waaye xamul lu tax nga def ko sëñ bi ne ko bëgg nga fonk alxuraan ak xam nga xam teraanga moo tax mu defal la ko. ginnaaw loolu sëñ bi bi nga xamee ne yàlla dogal na mu bind kayil ba noppi nag fekk sëñ bi ñibbi si Touba mu ñu yëkkati kayil ba jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha. Euh, sëñ ñu boole kaamilam ak kaamilu sëñ Saliou ak sëñ Abdou jëbal leen sëñ Modou Sa sëñ sëñ am satu jég jëbal leen Cheikh Moustapha ne leen lii dama seen wajur santoon ci ñoom fekk boobu sëñ sëñ bi samat ca ca daara jal ne woon waaye boobu moom ñii ñoo ko njëkk bind kaamil bi yàlla dogalee sëñ mu jëbal leen Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha tey seen kaamil yooyu yóbbu leen tindoodi boole leen ak sëñ Moxtar Jëng Goyaar mu leen di jàngal ginnaaw bi Cheikh Moustapha toxali leen foofu indi leen Touba jox leen sëriñ Abibu Mbàkke al imam Euh, mu leen di euh, jàngal ba sëñ bii bu jàngal na ko lu bari wax na ni it sëñ Assane Bousso it jàngal na ko diggante yooyu nag ci la pekk xam-xam yépp mu nekkoon euh, borom xam-xam bu mag boo xam ne kenn du naatable xam-xam ndax bari na lu bind lool. bokk na ci rek xuratul ayni bi nga xam ne li ciy jariñu kenn xamul nu toll ak buqyatul mur buqyatul muridin ak. ak ak ak ak ak euh, aadaabu tilaawatul quraan ak usul tasawuf ak waseetu Seydi Souhaïb bin Diène ak yeneen yeneen yu bari yoo xam ne def na ko sëriñ Souhaïb bu Mbacké nekkoon ku koo xam ne ku ku bëgg sëriñ Touba la te xeet lool ci sëriñ Touba ak njabootu Cheikhul Xadim gi mu nekk nag koo xam ne suñu borom daf koo tawféexale na ko seex Cheikh Mouhamadoul Bachir magam ju baax baax ja waxe woon Euh, bala maa ñëw ci Cheikh ma ñëw ci diggam ak Cheikh Moustapha comme ni ma ko waxee woon léegi Cheikh Moustapha diggam ak njabootu Sëriñ Tuubaa bi mu nekkoon diggante bu rafet boo xam ne diggam ak njabootu Cheikhul Xadim gi dafa rafetoon ñoom ñëpp ku ci ne ku ne la nga doonoon ci moom dala ko joxoon ba mat sëkk dalee ko ci Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo leen yar moo leen jàngal ndax moo jàngalul mooy leen sampal ay kër ginnaaw Cheikh Moustapha Cheikh Mahamadul Fadil mi ci toppoon itam noonu la demee moom wax nañ ne am na bis boo xam ne euh, toog na toog na toog ba mu yàgg mu namm Cheikh Mahamadul Fadil wala boog dañoo wax ne sëñ dafa xawoon a am euh, euh, dafa xawoon a tawat sëñ Abdul Ahad di ko bëgg a yóbbu ngir mu faju ji mu ñëw di siyaar tagu si Cheikh Mahamadul Fadil wax nañ ne bi ko Cheikh Mahamadul Fadil séenee dafa ne bii dafa naa mooy ne ne Amadou Ngoga nenu amul googa nee nañ day nen bu jafe boo xam ne yombut a gis wan ko ne ko jafe nga daal suñ songe bu ne ko xanaa ñëw namm la ak di ak di ñaanlu si suñ falu ne ko waaye yow waroo seeti kenn yow yow da ngaa war a toog rek ku la fekk ku eh, la soxla moo la war a fekk ndax eh, li sëñ bi bëgg yaa yaa yaa ca nekk nekkaaleel ñu ca noonu itam noonu noonu noonu mu mel ne Cheikh Mouhamadoul Fadil moom lool ci yàlla dogal bi Cheikh Amadou Fadil wujjee boromam moo ko moo ko moo ko moo moo ko taxawu eh, ñoom ñaarit ku ci ne tuddi na sa morom doom Cheikh Amadou Fadil tuddi na ko sëñ Chouaïbou Cheikh Amadou Fadil sëñ Chouaïbou ku ne xam na ko noonu la meloon nag Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Mouhamadou Lamine it tudde na ko sëñ Chouaïbou tudde na ko sëñ Baara tudde ko sëñ Abou Madiana ku ne xam na ko waaye noonu la meloon nag Cheikh Mouhamadou Bachir tam wax nañ ne jëlee naa ci sëñ Abou Guèye mu wax ne ñeenti yoon wala juróomi yoon lañ xam ci sëñ bi la fi génn ginnaaw bim dogoo ci ci toog ngir jàngale 1945 ba 91 juróomi yoon lañ xam yu mu fi génn Tuuba juróomi yoon yooyee bokk na ca ba mu gëjee gis sëñ su sëñ Bachir Cheikh Amadou Bachir te di ko siyaare ci te ba ñu yëgloo mu ne xanaa dangeen koo jaawale sëñ sëñ Abdul Ahad lay doon wax nañ ne sëñ Abou Gueye moomu nee na waajuram la àndoon wax na ne bañ ko jege jegelee sëñ Bachir daf ne xanaa sëñ sëñ Abdul lay doon waaye sëñ Chouaib moom dawut génn bi bi eh, bi mu génnee sëñ Bachir daf ne ko wax nañ ne bi ko gisee rek dafa tudd yàlla wax ko ne ko loola tax da ñëw mu ne ko namm la rek ba mënatuma laa ñàkk bañ a gis mu ne ko waaye yow da ngaa war toog yow ku la wax ko la ko Cheikh Mamadou Fall wax na fa Cheikh Mamadou Fall jaaroon ak moom rek mu jaaraat fa ak moom kon ñëwul Cheikh Khadim yëpp nanguloon nañ ko xalawutum bi mu nekkoon wax ko ne ko euh, li ñëpp li sëñ bi bëgg te ñun ñëpp ñu waroon caa nekk yow la yàlla defal tawféex nga nekk ca nekkaaleel ñu ca kon ku la soxla moo la war a fekk si ñu Amadou Fadl waxoon rek. wax nañ ne sëñ Abou Gueye na juróomi yoon yi mooy bi boobu muy siyaar yi Cheikh ak bi sëñ Abdoulaye borom dër bi wàccee ab liggéey ba muy seeti njaboot ga ak ñaari yoon yi mu demee Touba ba muy sanc Touba ba muy léemu Touba Belal bu ko sëñ Blaat léemuloo ak bi sëñ Blaat wàccee liggéey te tam dem fa mook sëñ Abibu Mbàkke di ko xooli ak euh, juróomeel yoon bi mooy wax nañ ne ci mu ci mujjëm wax na ne sëñ sëñ sëñ bi daana wax ne ku siyaare ji sëñ Abibu Mbàkke ca xuru Mbàkke yàlla jégal la mu dem na ak guddi ko wàññeeku juróom yoon yooyu lañ wax ne moom la fi génn Touba waaye noonu yi meloon ak Cheikh Amadou Bachir noonu la meloon ak noonu mu meloon Cheikh Moustapha Cheikh Amadou Fadil Cheikh Amadou Lamine noonu la meloon Cheikh Amadou Bachir noonu la meloon Cheikh Abdoulahi borom ndax Cheikh Abdoulahi borom dër bi weesoo sëñ Cheikh Abdoul Rahman xamalee ko ci xalifaam bu fi nekk sëñ Modou Habib ba ci sëñ Moussa Xasaay ñëpp ci sëñ bi lañ génne ci daal sëñ Chouaib bi moo leen yar noonu loolu ak jaxasoo foofu la mën a yam Euh, noonu la mel ak sëñ Touba Cheikh Abdoul moom ñoom ñaar ñoo bokk lépp waaye noonu lañ meloon wax nañ ne ñoom ñëpp niñ ko xamee ci xam ne moom du génn fenn lu dul euh, euh, dafa ne ci li mu war a nekk muy jàng jàng ak jàngale moo tax kenn ku ne amoon na bis boo xam ne moom nga ko may ngir di ko seet si wax nañ sëñ Abdoul Ahad bisub àllarba la ko daa seeti waaw sëñ Abdoul moom moom la jëloon léppam jox ko moo yoroon léppam noonu la meloon nag Cheikh Abdoul Khadir Mbacke wax nañ ne njabootu Cheikh Souhaïbou Mbacke bu weesoo sëñ Cheikh Ahmadou ak Cheikh Mouhamadul ñëpp sëñ Abdoul Khadir moo leen jox tur. sëñ sëñ Cheikh ak sëñ Cheikh Mouhamadul waaye bu weesoo tàmbale ko sëñ Abdoul Ahad ba ci euh, ku jiitu sëñ jiile ñi ci ñi ci gën a njabootu sëñ Souhaïbou gépp ci ci gàttal sëñ Abdoul leen joxu tur euh, ba mu des sëñ sëñ Cheikh Ahmadou ak sëñ Mouhamadul Fadil moo tax nee nañ euh, sëñ Soxna bu wax ginnaaw bi sëñ Abdou Khadre Mbacké wàccee ab liggéey ba doom euh, am caatam di Cheikh Abdou Khadre gane àdduna wax nañ ne sëñ jëlee naa ci sëñ Abo Gueye moom mu ne bi sëñ Soxna bu tuddee Cheikh Abdou Khadre sëñ euh, Abdou caatam daf ne ndax am moos am na am Abdou Khadre ndax yàggoon naa ko bëgg a lool waaye bu ñëwee. Euh, mooy mooy du ma ko jox tur te bu ñëwee mooy du jox du nangoo tudd boppam keneen la ko kon keneen la ko tudde mu ñëwee day wax ndax ndax keneen am na fi waaye du ci du ci boole boppam naka noonu tam noonu la meloo nag sëñ Abdou Khadre tam noonu la meloon nag moom ndax xam ngeen ne sëñ Jiil Ture moo nekkoon bëkk néegu sëñ bu Khadre bi ko gën a jege sëñ sëñ Souhaïbou amoon na ko am at ak genn wàll euh, mu nekk këram loolu ak jaxasoo foofu la mën a yem. El Hadj Ndiouga mel ni ñëpp xam. wax nañ ne jaar na moom fu mel noonu ci yoon wu mu fa ñëwoon woo xam ne am lu doon ñaanlu loo xam ne ba mu ca jógee wax nañ ne ginnaaw yàlla ci la tàmbulee ràññiku ràññiku gu fees ba mel nii mu mel tey kon bu dee tengal gi nga xam ne tengaloon na ko ci wàllu euh, bañoon lool jaxasoo ak góor ak jigéen moom fi mu ci yeggoon jéggi na dayo am na wax nañ ne bu masaa seen góor ak jigéen gu taxaw gu taxaw bu dee fekkee dañoo taxaw ci wetu genn garab day daggalu garab gi wax nañ ne ku ñuy wax sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke ku ñuy wax bàyyi sëñ bàyyi sëriñ wax nañ ne am na ku ñuy wax bàyyi sëriñ euh, bàyyi sëriñ Géey waaw amoon na bis boo xam ne bàyyi sëñ kañ yi am am na ko ñuy wax bàyyi sëñ kañ yi newoon ci kër sëñ bu suñu sax mas na ko yónni bis ci biir kër jigéen ñi ba mu àggee ñu xel ko fa ñu jot ko faa xel eh, ak café muy naan boo ko suñu soxla bu séenee ba mu ko siicoo keroog daa daa tiit ba sànni kaas bu mu toj ndax ndax ndax ndax tiit gum tiit am na ku ñuy wax bàyyi sëriñ Kanji tam bàyyi sëñ Guèye moom nettali na jëlee naa ci sëñ eh, Abo Guèye ba tey mu ne ku ñuy wax bàyyi sëriñ Guèye nekk bokkoon ci dongee tërbiye sëñ Blaat te sëñ Blaat déngoon ko suñu changement bu ay jamono nee na am na bis boo xam ne nii dafa nekk dafa nekkoon ci kër gi guddi jot mu euh, mu mu mu mu xiif amut lu euh, diwut lum lekk ba dugg kër jigéen ña ba mu duggee kër jigéen ña boo ko fa suñu changement bu séenee euh, ba teg ko am am ampoule bi rek mu daal daw ba mu dawee suñu changement bi dafa jël ab ab ab ndab maanaam boo bool këpp ca tànk ba ba mu ci tànk ba ba xëy suba woolu ko ba mu ñëwee mu ne ko ngay xoolal xool tànk bi tànk kan lay nuru mu ne ko mën de xaw ma ko mu ne ko ah tànk bi nuru na sab tànk de mu mu nakk nakkal mu ne ko eh, géy nit kuy wut yàlla du dem kër jigéen si bàyyi sëñ géey moomu teg ci ne am na bi mu fa nekkee boo war faa jógee boo war a dellu ko sëñ blaat nee na daf ko doon daf ko wax mu bindal ko ab téere mu ne ko téere bii nag danaa la ko bindal waaye téere bi gàllaaj gi maanaam weexal gi man rek ko am njëg maanaam njariñ li mooy bu fekkee man nga ko li ma lay wax bu fekkee man nga ko bu la neexoon man ngaa fekk gaynde mu tëdd nga war ca kawam waaye nag loolu moo weexal gi mooy lan ak ak ak nan ngay sàmme loolu mooy baye du kër jigéen kon ku teengaloon loolu la ci wàll eh, ci wàll googu la te loolu lépp day wane nur gu nuru Sëñ Tuubaa ci ci ci ci jëmm ak melu ak jëf yëpp kon daal Sëñ Asan niñ mën a wax ci Sëñ Son yu bari na yàlla nañu ko suñu borom fayal te taas ci barkeem te yàggal fi Sëriñ Cheikh du Mbacké ak rakkam yëpp lii la ñu ci wàccaayu màggal Cheikh Son bu Mbacké wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi fi nekkee ba ci atum 1991 ci laylatul xadar ci la wàcc ab liggéey guddi laylatul xadar ba mu jullee fajar ba bës set fa mu toogoon di wérd fa la euh, fa fa fa la suñu borom ñëwee dogalam ci wax nañ ni ginnaaw bi mu wooloo sëñ Abdul Ahad Sohaybu bu mu ñëw mu ko sëñ Abibu laataa sëñ Abibu di agsi fekk na mu wujji boromam kon kooku mooy Cheikh Abou Madiane Sohaybu yàlla nañ ko suñu borom fayal tataas ñu bàkkeem assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa masin ba joona suur bu dem gaar ba leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu mbokki Sénégal njàqare jeex na bis ni ki tey ndaxte lu ngeen doon jéggaani faneen ñëw fekk si leen fii ah dama ni mbokk yi su ngeen bëgg a tee lu sell lu neex baax seen wér gu yaram bu ngeen doon wër kafe bis ni tey mbokk yi gis ngeen ndax nag café Serigne Fallou Mbacké di produit bu bees tàq ñëw si marché bi waaye nag wuyu boroomam café kafe Fallou Mbacké 100 pour cent hygiène 100 pour cent qualité 100 pour cent naturel bii nag maa ah, mbokk yi kuy yéex de ñàkk ndax nag moo mujj génn de waaye moom dong la ñëpp di jàmbat café Serigne Fallou ba moo waral bu ngeen bëggee am si ay stock def seen réservation mën ngeen woote bu dee Touba si 77 636 38 03 bu dee Dakar Ouest Foire lay doon 77 521 39 14 wala Rufisque ngeen woote si 77 027 43 76 wala sax ngeen woote si 77 521 39 14 café Serigne Fallou 100 pour cent café produit bu mucc ayib moo leen di gunge saa su مدالي الحق المبين ما للبرية يبين وما لخير لا يبين من بشر ونعم